nag jàmm ci li ni kay xëy gënte ci Rewmi FM Rewmi Quotidien ne African Leadership Award fukki fan ci weeru novembre lañ koy amal ca douane bu Paris ca Méridien Étoile Porte Maillot njiital mouvement des entreprises du Sénégal nekk ci président directeur général bu groupe Promo Consulting Mbagnick Diop ci waxtaan wi dox ci diggante moo ko taskatu xabaar yu Africa ci waxtaan woowule Mbagnick Diop Rewmi Quotidien dil ci waat na ci lu jëm ci éléya yooyu la ak ni mu koy waajalee dëgg ba mu taxawlee lépp lépp xam ne jëm na ci corridor yi ba tey jile daanaka ñu koy béy xel ci àdduna bi yëpp tey jile tamit lu jëm ci African Leadership Award tamit ñu koy waajal ci diwaan France ba ñu ne daaw ay njiitu réew ministre ay kilifa yu mag mag béyikoo nañ fu ne ngir ñëw teewe ko waaye ren jiite jopp ci Rewmi Quotidien ngi ci xaar ay kilifa yu mag mag yu nar a ci réew yi ci ndaje moom la darañ fa wéy di sargal ñi nga xam ko njiit di maître Moussa Diop maître Moussa Diop nekkoon ganam émission Grand ci Rewmi FM ci Rewmi Quotidien tey jile lu jëm ci centre socio ko ko te tey jile lépp loo ci Dakar dem dikk ba mu ko jiiteeg léegi tax na ba fi ñu toll nii kër googu bu Sénégal rax ci dolli moom maître Moussa ci boppam fi ñu toll moo bëgg a victimiser rek waaye kenn defu ko dara te tey jile mi ngi ci sécurité bu doy sëkk ni ko war réew mi yëpp amee réew bu Sénégal ni ki démb maître Madické ma ngoon ca diwaan bu Tivaouane door tukki bi nga xam ne mi ngi koy nemeeku kilifa dini Le Quotidien yéen i kaay ne maître Madické Niang ni ki démb ci kanam xalif général des Tidianes retraite di xamal dëgg-dëgg lan moo tax mu bëgg sën pëndërëm rationalité moom moom maître ma dikk ñag ne ci programme tibiti li ci gën a fës ci taxaw ndaw yi waaye lu jëm ci wàllu ndimbalite bi ñu wax ci réew Sénégal ñu fexe léegi ba du yem ci ay kaddu rek mu nekk ay jëf Serigne Mbaye Sy Mansour ci kanam maître ma dëkkee ñang ne président ma dëkkee Sall ngémb bu nekk ci opposition bi lay jàppale loolu lay bu ko maître ma dëkkee ñang defoon rek askan wi léegi dootuñu am benn jiixi jaaxa ci ndax maître Madické Niang président Macky Sall moo ko ngémb wala déet waaye li li mel Dakar Times dina du ko def benn yoon ndax maître Madické Niang ci moom fi ñu toll li bu ñu demee deuxième tour mu jàppale ji président Macky Sall président Macky Sall bu faloo def ko premier ministre candidat déclaré ci élection présidentielle yu toll ci fukk ñoom ñu boole nañu seen doole ngir tey loxo président Macky Sall ngir président Macky Sall boobu lay mën a signé société bu réew bu daanaka contrat boo xam ne bi réewu Sénégal du ci gis boppam Thierno Alassane Sall mi nekkoon ministre bi ñu denk lépp lu jëm ci wàllu énergie ci nguur ak ci yéen kay bi la fi ñu toll Sénégal yàgg naa gis boppam ci contrat yi nga xam ne ndax président Macky Sall premier ministre am ak am daanaka bu ñuy signé tamit duñ ci bàyyi xel benn yoon askan bi di la tribune fukki xam ne moom itam ñu koy waxtaane fii ñu mooy lu jëm ci wàllu ndoxum Sénégal bi ndax SDE lañ koy joxaat wala beneen société bii di siège di société française lañ koy jox libération yi ni kay ne fi ñu toll ab enquête inspection générale d'état di IG ubbi na ko ngir xam dëgg-dëgg mbir yooyu lay lan ci nekk waaye ba fi ñu toll nii kay bi ne am nañu bëri ci ku jege ñoom taxaw nañu temm ne lu jëm ci contrat ndox moom lay bu ñu ko jëlee Mbanke fi toll nii ab juge d'instruction ci boppam la ko jox moom ab néewam Cheikhou Sakho ni ki ji lañ koy jébbal boromam ca diwaan bu Sokone donte ne l'enquête bi ak law bi nga xam ne koy wéy ko law ci réewu Sénégal tax na ba ministre bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ni tey jile nar cee indi ay leeral wala taggat yaram stade ak yi ni kay xëy jile Messi gaañu gaañu yi xam ne am na ko tax na ba fi toll nii waa Barça ci boppam xamatuñu fu ñuy teg seen tànk Ismaïla Sarr Sénégal bi moom itam jili kay ci am ay jafe-jafe jamono ji xam ne ji Omar Sarr secrétaire général adjoint bu parti démocrate sénégalais ne parti démocrate sénégalais mi ngi waxtaan ak fi toll nii Ousmane Sonko ak Khalifa Sall ngir lu jëm ci élection sàkku ci maître Abdoulaye Wade mu génn ay yoxam ba mu set wecc ci wàllu politique yi te dem jàmm suñu borom